chaîne Dakaractu TV di leen dalal ci seen émission bi di en ligne rawatina ci nouveau numéro bi nga xam ne c'est spécial tey jii parce que dañ ci waxtaanee suñu bopp ñun ñi nga xam ne ñun ñooy souvent ñi woy wayu jëfandiku yi dinañ wax usager wala consommateur di waxtaan ci lu mel nag ak xew-xew yi nga xamante ni moom moo fi am dañu am plaisir daal di recevoir ki nga xamante ni moom moo di Momar ndaw Momar ndaw moom mooy euh, ki nga xam ne moom moo jiite kuréel gi mooy tudd léegi président de l'Association des consommateurs du Sénégal du SOSEN président ñu ngi de nuyu la dalal. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu waa ak yëpp di nuyu équipe technique yi di nuyu ñi ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew. Mhm. exactement alors euh, président souvent bu ñuy wax ASCOSEN euh, ñi nga xam ne ñoo di le grand public euh, li ñuy wax souvent rek moom mooy kuréel bi nga xam ne moom mooy défendre ñi nga xam ne ñooy way way jëfandikoo yi mais ci ci ci gàttal ba ñu doon jox définition. ci li nga xam ne mu di Ascosen mm. lañ ngay wax ñi nga xam ñoo lay seetaan waa Ascosen batu gatal la bu association des consommateurs du Sénégal mm. moom mooy kuréelu waay jënd yi ak waay jëfandiku ndax nit ki mën na di jëfandiku fekk jëndul ndax ki nga xam ne moom mooy jënd mën na nekk yaay ji doom ji ko di ko jëfandiku moo tax ñuy wax waay jëfandiku mm-hmm way jëfëndiko bi nag mun na nekk tamit ne mooy waay jënd bi comme mun na bañ a nekk ne mooy waay jënd bi maanaam mun na nekk ki koy utiliser te fekk ne moom jënd ko donc ñun ñooy taxaw pour que képp koo xam ne da ngay jëfandikoo dara wala da nga koy jënd te nga nekk ci biir réew mi ci Sénégal nga nekk sénégalais nga nekk étranger ñun dañuy teew pour dimbale la ba tax njënd moomu sell jaar yoon buñ la nax la ngay jënd aussi nekk lu jàppandal nga am itam li nga wax la nga xam ne moom wax droit au choix ndax euh, président John Kennedy moom moo indi woon wax jooju ca États-Unis ndax dafa am ku wax Ralph Nader moo commencé woon doon kaas léegi nag président États-Unis nag def ben message ci congrès bi en 1962 le 30 le 15 mars wax ne dal léegi ñi nga xam ne ñooy way jënd yi ak way jëfandiku yi am ay àq ak ay yelleef yàqi àq yooyu nag ak yelleef yooyu nag ñun yooyu la ñuy fexe ba ñu respecté ko. tout à fait dafa am solo la wax ci sëñ bi wax man bi sax oublié euh, woon naa ko parce que da ne. Euh, yemu leen ci Sénégalais yi. défendre aussi bien. ñi nga ne ñoom ñoo di étranger. exactement ñoom ñoo nekk fii. ci ci ci cadre lay nekk souvent. waaw xam mooy nga bu fekkoon dañoo association des consommateurs sénégalais. ku nekkul sénégalais duñ la jàppale mais même bu vous yow étranger nga nga ci location wala nga nga nga dawal sa oto mu am ci dal wala nga nga nga fay wala courant wala téléphone wala nga jëflante ak koo xam dafa teggi say dañ lay défendre donc duñ ñun xooluñ ndax waa ji ku kii la ku ko sénégalais su ma juumul 1994 ba léegi yaa ngi ci bopp kuréel boobu. Mhm. ay xew-xew yu bëri daal di fiy jaar ay euh, mbir yu bëri daal di fi xew alors euh, boo ñu doon wax ci at yi nga xam ne moom nga traversé ci yi nga xam ne moom moo di kuréel gi. Mhm. yan yan yan yan xeex yu gën a mag ci sa gis-gis dootoo ko fàtte ngeen ko. moom ngeen ci jafe-jafe bu baax a baax. waaw am na benn at moo xam ni. 1993 euh, Sénélec dafa xey rek ne man dootuma relevé ñaari weer yu nekk léegi damay toog ñeenti weer ba ñeenti weer laay relevé su ma toogee ñeenti weer ci diggante bi ñaari weer bu jotee damay xayma rek dama naan kii de war naa consommer nangam te loolu yoon mayu ko ko boobu sax man nekkaguma président boobu man secrétaire général la amoon nañ président ñu réunion ñu ne comme Sénélec lii mu bugg a teg askan wi jaaduwul nañ ko xeex ñu wax ak Senelec Senelec ne du dellu ginnaaw ñu porte leen plainte wax ne Senelec li mu bëgg a def li tax mu garaaw mooy su ko defee njëg gi day gën a yokk ci consommateur bi ndax nombre de jours yi ñaari weer la war a tombe su ëppee ñaari weer yow consommateur bi sa prix day gën a seer su gënee néew ñaari weer Senelec mooy perte kon ñaari weer la war a nekk plus ou moins 5 jours donc plus nombre de jours yi yokk rek léegi moom bu ko jëlee 60 jours yóbbu ko 120 jours kon bu boobaa day fi ñuy lor lor bu métti ah bi ñu xeexee loolu <laughs> def boobu man mana kon directeur du réseau benn compagnie d' assurance bu ñuy wax kon Sonam di maa nekkoon directeur du réseau ah ci biir loolu directeur bi nga xam ne fi nekkoon ci boobu muy Abdou Ndaxmaan Ndiir ñëw réunion fekk ñu fekk ma fa mu ne directeur bi waaw kii lu muy def fii mu ne ko kii kat mooy sama directeur du réseau mu ko mais ñii ñoo ñu porté plainte mu ne plainte lu ngeen Mana mu ko ah dañoo am benn association porté ñu plainte ca suba ga directeur bi oo oh, ma ñëw mu ne ma ah waaw loo joteeg seen rek ma ne ko ah seen rek jotewuñ dara mu ne ma inkay kay nee na da nga leen a porté plainte ma ne ko déedéet du man man dama cee gën a siiw rek waaye du man dañoo réunion ñun ñëpp ñu d' accord porté plainte comme nag man maay wax ci turu kuréel gi moo tax ñu yaakaar ne man la mais ñun ñëpp ci d' accord mu ne ma non yooyu daal bàyyil yooyu yow mënoo nekk sama directeur bi yore li nga xam ne mooy commercial bi ba far di attaquer sama client bi gëna mag kon dal da ngay bayyi ma ne ko déet ñun kat mana duma ko mëna bayyi non mëna ma lutax ah, joxe sama kado. té ñom liñ bëgg def jaadul té ñun dañoo jël né dañuy défendre nit ñi mëna ma non dafa melni xamoo li ma wax de. Mm. sa contrat dina jeex mois de juillet bo bayiwul sénégal du du du ki mm-hmm. duma ko renouveler ma kon de do ko renouveler. mu xool ma ne ma xanaa déggoo li ma wax da ngay ñàkk sa liggéey ma ne ko kon danaa ñàkk sama liggéey bàyyi wuñ mois de juillet jot sama contrat jeex renouvelé wu ko ñàkk sama liggéey ngir défendre consommateur yi loolu 93 nekk directeur yore oto yore avantage yu nekk nga perte avantage yi tout simplement pour sa conviction te boobu man nekkuma sax président ci yu mel noonu nag laa nekk tous les jours combat yi gën a mag yoo xam ne gañe nañ ko jo jonkonteñ fekk Sonatel dem ak moom tribunal mu gañe ñu première instance ñu gañe ko appel ñu dem cour suprême ñu gañewaat ko fexe nañ bañ alamaan Sonatel 3 milliards parce que respecté wuñ consommateurs yi ñu demaat demaat demaat ñu fexe bañ alamaan leen 14 milliards après sax dañu wàññi loo ak yooyu mais yep pour non respect des droits du consommateur. mais comment yooyu doo leen ci communiquer souvent. kay que kay presse bi wax que nous, xam différence bi que meluñ ni ay parti politique xam nga parti politique day bëgg di génn di expliquer parce que nous ci expliquer qu'ils ñuy donc nous, suñu journalistes, yi ooyee rek la wax suñu ool duñu lumay vraiment affaire yi jaxasoo jaxasoo jaxasoo mais liñ def bari na bari na ba nga xam nek na talif. man suma démé ba président Barack Obama dima bind lettre dima wax né ma administration américaine dañuy def ben loi bo xam c'est sur la protection des données personnelles ci liñuy wax un monde interconnecté ñing la ci laaj sa xalaat loi la bu wara dem congrès mais kon kay ñun liggéey nañ ndax États-Unis ñoo gëna avancer ci affaire défense consommateur kon su Sénégal xamul man lima ma liggéey ba américains yi xam ko mais juróom-ñetti réew yu UEMOA yi nekk fii ci Afrique maay seen président man lañu def président depuis 2006 kon wax dëgg yàlla am nañu xam li may def te sénégalais yu bari tam xam nañ ko ah ñi ci ëpp sax d'ailleurs parce que man mënumaa dox 200 mètres te sénégalais yi taxawloo wuñ ma na ma gis nañ li nga def ñu ngi lay ñaanal continuel bul fàtte waxal ci lii ndax lii am na solo su demee ba sénégalais dem ba police jonkonte ak policiers yi mu jàpp ne li ko policiers yi def jaarul yoon ñi di ñuy oo ñun ne nañ ci wax bu ñu demee ba ñuy kalaame ñun ak police su fekkoon ne liggéeyuñ séréewuñ amuñ objectivité gars yi duñ ñëw ci ñun léegi ñu bari sax suñ jotee ñoom ñaar dañuy ñaar nit suñ jotee sax dañuy ñëw ci ñun xam nga lu tax parce que dañuy wax ne sii bu ñu fi ñëwee dëgg lañ leen di àttee dëgg lañ leen di àttee te aussi Euh, du mun a am ay kii daal maanaam xam nga tey jii mun nga yóbbu nit police mu gën laa am dugg-dugg am yey ci yow wala duñ ko topp te fekk ne moo yow yaa am dëgg mais ñoom jàpp nañ ne suñ ñëwee ci ñun dinañ leen àtte ci dëgg am na benn góor goo xam ne dafa lée woon benn jigéen joteeg jigéen ji jigéen bi ooñu ci guddi ne waa ji dafa ñëw pour laaj caabi yi et cetera bañ defee ak li ñu def yëpp et cetera góor gi bañ ko jotee ba mu xamee na man la mun mënuma man loo wax d'accord naa luma ma bayna bàyyi naa ko moom moo nekk sama keur ni ni ni expliquer tout ça mais yow wax rek lo wax rek lolou lañuy def donc koku parce que xamna ñun ci deug ci taala lañ ko tek atam bi fiñ waxé né ne Sénélec nga xamné sénateur nga xamné euh dafa euh, état du Sénégal né won da fay def ben taxe pour ñu taxer ko wa bitim rew Sonatel bañ Sénégal yépp dañoo andon ak Sonatel gouvernement bi sax dañoo andon ak Sonatel man ak Ablaye wad kese ñoon ñoo waxoon ne lii moo baax yoon euh, kii wax dëgg ñëw na ci ñun tey ji ndax 60 milliards yoo xam ne chaque année imagine depuis 2010 ba léegi ça fait 9 ans ça fait plus de 540 milliards yu waroon di dugg chaque année ci kii te euh, état perte na ko te euh, ñoom ñoo koy jël ñoom opérateur télécommunication yi ñoo ko séddoo kon wax dëgg yàlla ñun ñi ngi xeexal askan wi waye nak duñ sét lu neex askan ñu diko wax xam nga lu tax parce que tay ji bo nekk leader li gëna a neex moy nga gis gaay contre dara rek nga and ak ñom nekk dans la mouvance légui su fekke gis nga ne mouvance bi fiñ jëm baxul man de sama baay bi may dugg ci affaire yi consommateur dafa am lu mo waxon té lool lay jema a sàmm mu ma kay fi ma ñëw mu ma dana la wax li yalla waxon Moussa man ko yalla waxon Moussa. mu ne def na ko bul ragal ben nguur tank sama nguur gaa fi man yalla te sama nguur gi du fi jog mako bul naagu même boo seenoon sa bopp ci àjjana ndax jaamu yàlla du naagu de koo tane dimbale ko bul ragal xiif tant que sama magasin yàlla yi man man yàlla sama magasin yi mu ngi ubbi te samay magasin du tëj ma foo toog del bëreeg seytaane ndax boo bëreewul seytaane mu bëreeg yow daan sa ko te aussi booy atte sa mbokk atte ko ci dëgg si loolu laa jéem loolu laay jéem di ko def lu métti la nag looloo tax euh, mais xam nga ñu bari dañuy dugg ci dara ngir dara xam nga am na ay 400 parti politique tey ji syndicat yi ëpp nañ 100 quelque association consommateur ñaar fukki rek lañ ak ñett xam nga lu ko waral parce que jité association consommateur lu metti la ndax dang ci sonu ya ci def sa xaliss ñi ngay défendre di la attaquer mais man lutax ma nek président parce que man dama dañu ñu créer association consommateur ñun bokkuñ ci woon ay nit ñoko créer bañ ko créer ñu ñëw jaay sama carte parce que man dama doon kaas ne nañ defar oto yoo xam ne day méngoog ñun africains yi suñu bëgg-bëgg biñ ñëwee jaay ma carte un mois après bu ñu créé Ascosen laa dugg ci Ascosen doon ci membre simple commission transport comme ñu ne ma yow ci affaire transport yi danga nga cee réfléchir oon ñëwal bokk ma ñëw bokk comme man lu ma dugg nag dama ciy farlu dem ba jeex ma farlu ci farlu ci bañ fal ma président commission transport ma farlu ci farlu ci farlu ci mais xam nga comme sénégalais toujours dañuy def ay affaires sénégalais ñu jaxase président ba ak secrétaire général ba bañ jotee te comme man secrétaire général bi moo ma fi indi woon ma def tout pour mu bañ a mer ba moom far dafa mujj sax gedd bàyyi démissionné ba mu démissionné lañ ma fal secrétaire général ni kon du ma nekk secrétaire général ñu dawal dawal dawal dawal dawal ba 1994 président bi démissionné ci lañ ma falee président

man li ñuy xamuñ ne depuis 15 ans présidence de la république lay liggéeyee mais 2008 bi may mars ñu may japp dima ma courant ba ma ngi liggéeyee présidence kon kay wax deug yalla sama lepp jox naa ko consommateur yi. loolu na kum doyul dara dootu la doy léegi nag problème amna parce que amna ñu may attaquer waye nak <laughs> bo xolé dafa melni ni maa leen ndax bu fekké ne nit ki dafa jog wax ay wax basé wu ci pour xeex dara. yow ñu laaj la sa avis ci wax jooju nga wax ci li deug mu leer indi gindi ci askan wi ba tax ñooñu seen combat doxatul dañ lay mere. loolu moom mu boole ak ñi may attaqué ci ay Facebook yi ñoom ay frappe France dégage ak. waa Sonko yeeg yooyu loolu loolu mooy problème. dinañ ci ñëwaat danga dinañ ci ñëwaat dinañ ñëwaat tamit ci opérateur de téléphonie mobile yi. <laughs> parce que c'est à l'ordre du jour. <laughs> Euh, wax nga fi léegi def corrélation entre. choisir le camp du peuple. ndax mmh. ñu daal di rompre sa sa. c'est ça mmh. euh, situation boobu noonu est-ce que ñëwaatul le fait que nga nekk présidence. di ko mmh. liggéey. di défendre également consommateurs yi nga xam parfois di nga ci situation boo xamante soit da ngay xalaat défendre le défendre peuple bi yow da ngay dem à l'encontre des intérêts. ci li nga xam ne moom moo état bi est-ce que arrivé na la parfois ak na nga ko gérer. non euh, xam nga damay joxe benn exemple xam nga li nit ñi xamul mooy comme ni ma la ko waxee sànq ngi doon liggéey présidence depuis depuis 2004 muy 15 ans 2008 li taxoon ñu marche commerçant yi dañ xëy yokk ceeb bi yokk ci 100 francs jëlee ko 250 yóbbu ko 350 ñun ñu ne nii c'est pas normal ñu dem seeti ministre bi yore mbir mi xam nga lu ñu ministre bi wax. solution amul da ngeen xaar 2015 su ngeen xaaree 2015 ñu bay ceeb bu doy. su ko defee njëg gi dina wàññeeku. ñu ngi en waaw parce que boobu gouvernement bi naa li mu gisee woon mooy lu ne gaañ rek njëg di wàcc kon pour wàññi njëg yi nañ def mu ne gaañ. bokk na li ci taxoon marché nañ sax ngir ñu wàññi loyer bi mais nguur gi d'accord loon parce que dafa ne nañ yokk logement yi ah, ñu ne comme ki nga xam ne moom la président jox mbirum commerce ne ko yow lijjanti lii moom nee na solution amul. Nous ñu wax solution nous wuñu comme ça président a été. la tax marche président a bi biñ ma mu courant ak affaire bi ma ne ma looy marche ma expliqué ko mu au premier ministre ko wax lu la commission a personnellement chaque semaine muy chaque semaine ñu présider ko premier ministre day euh, directeur de cabinet ministre de la Défense ministre de l'Intérieur ministre de l'Énergie ministre du Commerce ministre de la Communication directeur général de la Sécurité nationale directeur général des douanes TOC, directeur euh, commerce intérieur TOC, ñoo sommes tous bien représentant assemblée représentants représentant sénat ak moi, Jean Pierre mi nga m'a invité pour une bokk de marche Ce qu'on ko defee nous bi su ñëwee rapport nous woy fait un rapport, premier ministre man daw mané ko baaxut parce que liñ wax fi ni li amut li ak li ak li mo am li li li ñu corriger chaque semaine loolu lañ doon def réunion kon amul antinomie mais bu fekké ne da nga nek ci biti di xéxal ñi ci biti ndax dañoo son nga bëgg borom kër gi nek ci biir kër gi dégg wax ji té mëno dugg da ngay taxaw ci biti nga yuxu nga né eh nga yuxu yuxu yuxu yuxu ba borom kër gi né lu ñooñu di yuxu nga ne ko gaay yi kat dañoo son mu ne ah luy problème nga ne nangam mu ko lolay indi mars mais bu dee yaa ngi ci biir kër gi am ñu sonn ci biti nga ne borom kër gi ñi ci biti dañoo sonn mu ne luy jafe-jafe nga expliqué mu ne loo ci xalaat nga ne ko ah lii de am na yoon mu ne aywa kon kay soxlawul marché soxlawul yuuxu ndax tey jii boo xoolee li nga xam ne moo jëm ci affaire location bi bi ñu nekkee ci Ablaye Wade di di di di kii wax nañ ba sonn moom d'accordul parce que moom dafa jàpp na nañ yokk euh, kër yi suñu yokkee kër yi mu wàññeeku waaye malheureusement li ñu yokk yokk doyul parce que ñi doon demandé daf ci am ñu jógee ci yeneen réew yi di ñëw ba tax affaire bi euh, métti bi président Macky Sall ñëwee ma ne ko nañ wàññi ma ne ko nii nii nii nii mu fal juróomi nit man professeur Iba Der Thiam ki dirigé woon notaire yi ak euh, benn expert immobilier ak benn magistrat ne acca ñu commencé liggéey bi yaatal ko dugal ci waa impôt domaine ak yooyu ak waa habitat ak bailleurs yeeg locataires yi defar génne loka génne loyer ñu wàññi location bi man mii wax ak yow am naa kër. mooy xeex pour ñu wàññi location bi du pour man. mais mais est gisoo ne euh, solution boobu noonu euh, solution bu indi problème la tey parce que. Euh, temps yi yëpp ñu gis ci réseaux sociaux yi stop xaw ma alimentation abusive ak yooyu waaw solution bu indi problème la parce que euh, lañ ci waroon a jël xëy na peut-être waaw ko woon comme mesure voilà très bien xam nga dañoo gars yu bari dañ foog ne rek président Macky Sall rek moo jël affaire yi loi décision mhm. mais loi yi ak décret yi depuis 1977 la depuis temps de Senghor am na yoo xam ne temps yi Abdou Diouf la ñun dañ cay changé rek niñ koy calculer rek lañ changé mhm. pour njëg yi wàññeeku bañ ko defee yii problème moom lañ am te moo indi jafe-jafe yi benn bi mooy locataires yi ñoom am na problème yoo xam seen côté la benn côté bi mooy nguur gi locataires yi ñun bi ñu am na locataires yoo xam dañ dem wax seen borom kër ne leen plie ngeen di ma wàññil vingt neuf mille ndax man cent mille laa doon fay léegi soixante onze mille laa war a fay wàññil cinq mille kese waay waay waay kooku loo mun ci moom yow xeexal nga ko ba ba mu am vingt neuf mille nga xam ne mën na cee jënd saaku ceeb jënd ci leneen mu ne noo cinq mille kese wax ko borom kër gi wàññil ma ko xam nga lu mu ci jubloo pour woon borom kër gi ne ko man kat appliqué wu loo ma la loi kon man it su ma la fayulee bu ma appliqué loi mais bu fekkee ne koo xam ne mi ngi fay location normal nekk fi ci temps yi location bi prix mu wàcc na mais bu fekkente ne bii dafa Euh, fayul ñu ku ko mu dem beneen kër kooku aj prix boobu itam yoon am lu mu wax nee yow mun ngaa dëkk ci kër gi ba pare ne kii kat li may luyee dafa seer soo ñëwee seet suñu wala nga dem tribunal tribunal dafay euh, jël benn expert mu calculer prix loyer bi

yoon dafa wax ne pour nga mën a génne waa ji ñaari condition la soit yow nga fay dëkk wala nga ne da ngay defaraat wala fayu la su dee yaa fa bëgg a dëkk ñii lañ may nga mun a wax ne sa waay mais ma ma récupérer sama kër mooy nga di dëkk yow sa doom wala sa doomu soxna wala sa wayjur maanaam sa baay wala sa yaay wala sa baay wala sa yaay bu sa soxna mënoo sax génnee nit pour dugal sa frère jumeau maanaam sa frère boo bokkal ndey ak baay ngeen nekk seex sax mënoo génnee locataire bi dugal kooku te yo yoon dafa wax ne soo génnee locataire bi nga dëkk ci yow wala ñëw ñu ma la wax buñ ci dëkkee loo xam ne matul deux ans ñu génn di nga remboursé waa ji deux millions quatre cent mille su doon ne waa ji cent mille la doon luye par mois. manam su de da nga génne nit ki pour taba taba su la porté plainte nga rembourser ko 2 millions 400 mille bu doon 100 francs la fay par mois su euh da nga bëgg a waji nga ne da ngay défarat yoon ben défarat rek la wax ne ci la nangu nga mëna a ki nga xamné moy locataire bi moy nga rajaxé kër gi démolition reconstruction mais ay damay damay karo damay ki mëno ci génne légui te bu fekkee da nga ne da ngay démolition reconstruction da ngaa war a joxe turu architecte bi su dee am lu architecte nga joxe tur ak adresse su ki nga xam ne moom entrepreneur bi joxe autorisation de construire bi la autoriser pour nga defaraat te yoon dafa wax ne foofu gardien rek moo fa war a dëkk te bu paree ki fa dëkkoon mooy prioritaire pour nga luyewaat ko ko kon yoon dafa protéger protéger protéger locataire bi mais locataire suñ la protéger jox la yëpp te nangu woo jël sa àq toog fële di croiser le bras naan non amul suivi day am problème parce que tey ji nu tax nit di defar kër di def ay buntu kër di ko tëj mais parce que soo ko deful am na samba boobu mën na ñëw foofu sàcc sa bagage mais su fekkee yow da nga jël sa kër ubbi bunt yi ubbi palanteer yi ubbi yëpp ba pare dem toog ca gannaaw. mais bu nit ñëwee sàcc la nga ne noo amul kër dëkk bi amul suivi loolu tam loolu tam dafa nekk problème parce que tey jii bu fekkoon ne ci boppam état bi ci boppam dugg na këroo kër comme ni ñuy defee recensement di la laaj est que yow sa waa ji lim la luyee normal na dañ naan la waaw boo demee ñu ne waaw mënuma ko woon a wax te ba pare fu nekk di kaas yoon daf leen a protéger totalement njëgu loyer mun ngaa dëkk ci kër 10 ans xëy benn journée man waa ji lim may luyee dafa seer lu tax duñ ko def yoon dafa wax leen nit ki bu la loué premier mois balaa nga koo fay war na la jox feuille bi wane ni mu calculer prix loyer bi. Mhm. lu tax duñ ko laajte te bu la ko joxul moom yoon da koy daan alamaan deux cent mille. 2014 ba léegi maa ngi wax juróomi at maa ngi wax ci lii yoon may nit ci location nee naa leen kuñ génnee bañal ba ñëw ci ñun soo ñëwee ñu xool bu dee yaa nekk ci dëgg ñu ne yaa nekk ci dëgg bu dee nekkoo ci dëgg ñu ne nekkoo ci dëgg waaye dañuy toog seen muq-muq rek toog seen toog ba affaire bi dal sen kaw ñu dogu commencer commencé wala amul suivi mais amna tam lo xamné deug la location loi yi nga xamné ñoko ñoo yépp tëral wax ñan ñoko wara appliquer dañu wax né ministère de l'économie et des finances moko wara appliquer depuis temps yi Senghor depuis toutes les lois yi existé yi wax ci lolu ñoom la waaw 2014 ba légui est-ce que mos nga dégg ministre de l'économie des finances moo wax ci loi yi est-ce que mos ngaa dégg ministre du budget mu wax ci loyer est-ce que mos ngaa dégg directeur général des impôts et domaines wax ci loyer kenn ci ñoom waxul ci loyer. mais nag président euh, Bayer yenn saa yi Sénégal yi dañ naan c'est là qu'ils sont censés euh, réguler la chose ñoom ñoom moom léegi ñooy Bayer yi. mooy loolu problème bi nag su ko defee ñoom duñ d'accord ci loi bi voilà ñooñu duñ d'accord ci loi bi duñ mëna wax d'accorduñ parce que ñom ñu ngi liggéey ci état bi duñ mëna wax d'accorduñ dañuy nopi rek bu ko défé su féké appliquer des na rek doto leen gis dañuy nëbbatu dañuy ne mukk loolu la loolu mu bokk na ci li indi jafe-jafe yi parce que tey jii xoolal boo amee problème location soo demee police sax ñu ne demal asko ASCOSEN demal préfecture ñu ne demal ASCOSEN soo ñëwee tribunal ñu ne ah est-ce que jaar nga ASCOSEN parce que soo fa jaarul dangay dem da ngay am jafe-jafe mais donc ça veut dire que y a problème ñun duñ état ñun duñ état dañuy jëf loo xam ne liggéey état la te état jàppale wu ñu ci loolu. mais euh, su fréquence yi ngeen ci bailleur gis nga yokku na day yokku kay parce que xam nga lu tax su fekkee yee nga nit ki. Mhm. xam nga bu njëkk lan maa daan am. boo déggee nit dem nañ ko tribunal ci affaire location rek dafa fayul waa ji yóbbu ko jox ko huissier yóbbu ko tribunal. Mhm. loolu rek lañ daan àtte loolu rek. Mhm. bari woon na nag mais loolu rek lañ daan at légui ñu am ño xamné ñun yee nañ leen ne leen attention am ngeen àq bi am ngeen droit bi su leen bëggee génné mën ngeen bañ su ngeen ko fayé mu bañ mën ngeen ko def offre réel et cetera wax wax secret yi gaay daan def yépp légui suñ la ko bëggee teg te nga xam loolu da ngay bañ nga oté nga né ah wa asko sen wax leen parce que man sama borom kër gi nangam ñu ne la ñëwal nga ñëw indi dossier ñu and ak yow accompagner la utal le huissier utal le avocat dem ba nga tribunal nga gagner sa bayer té loolu liggéey état la te li ngeen koy defal yëpp waaw moom mooy fay huissier bi nag. su fekkee dafa laaj avocat tam moo koy fay. mais ñun ñoo koy booleek ñoo xam ne fu mu ci waroon a fay mille francs lam ciy fay du du du du doon dara. Mm-hmm. kon ñun ñi ngi appuyer di ak ak di dimbale chaque jour askan wi te nekkul lu ñuy wax ci télé bi. man tey ji boo ma awuloon tey ji xaj na doo xam loolu yëpp noonu la demee donc ce qui fait li ñuy liggéey dafa am solo am solo man ci sama bopp mënumaa dox 200 mètres ci mbedd mi te kenn arrêté wu ma ne ma waaw gis nañ li ngay def ñu ngi lay ñaanal continuer waaye am na problème bii wax ci bul fàtte bii waxal ci bii waxal ci bii

est-ce que seet voilà mu ne ah ça va ma ne ko ma ne ko da nga am problème mu ne non xam nga tam loolu coono la. mënoo ci dara waaw. Mm-hmm. bu ñu neexoon fay suñu téléphone def ni ñëpp bu ñu neexoon nekk ci suñu yitte def ni ñëpp. Mm-hmm. alors pour pour jeexal chapitre boobu euh, am nga impression ni. Euh, askan bi le peuple mm-hmm. moom ngeen di def tout à fait waaw waaw loolu moo ma ci téye sax ba léegi. parce damay jot ay message am na benn waay dafa ma message démb ne ma man loo dugg maa ngi ci ndax ba ma amee problème yaa ma jàppale ndax jonkonte naa fi ak benn entreprise bu mag affaire bi am jafe-jafe ba nga ci intervenir ci la problème bi réglé ñu ci bari ci ñooñu am na koo xam damaa taseeg moom mu ne ma yow moom fu ma la gis danaa la nuyu ma ne ko ah lu xew mu ne ma dañ maa jox facture 400000 yaa ko lijjanti ba mu sotti ba quarante mille laa fay am na benn paa dafa toog cinq ans ñu coupé ko ndox amul ndox parce que dafa amoon facture bu seer xaw yu mel noonu paa bi amul doole cinq an fu dem gars yi ne ko boo fayul duñ lay indil ndox te amul xaalis bu mu fayee ndox mi parce que facture yi yéeg na ba xaw ma ñaata dem na seeti ministre baak lu nekk fu ne essayé na sottiwul gars yi ne ko demal seeti ñoom asko seen ba xam mu ne ko wax yow loo xam ne ministre bi mënu ci dara ñoo ngay wax asko seen mu ne demal rek comme doo fay dara demal góor gi ñëw nañu naa moom daal dañ ko coupé depuis cinq ans sonn na trop te amul xaalis bu ñu koy laaj pour mu fay pour te bu mënut mu ngi dund saa ndox ma ne ko fexeel rek ba indil ñu benn feuille kese bu wonee ne yow mi numéro bii mooy sa numéro client ndeke dencoon na feuille bañ ko coupé woon facture ba bon de coupure bi xam nga day am numéro compteur yeeg affaire yo ñu jël numéro compteur bi dem ci sg e ne len hé ñu na ah, man lay kii ki ni ko xamne la c'est pas un commerçant yoon dafa wax ne so jaayé nit dara wala nga defal ko prestation su uppé 1 an té mom du commerçant perte nga prescription anal té su bëgg gaay indil ko ndox góor gi amul lu mu waxul yooyu la ñuy def chaque jour te duñ ko wax ci rajo duñ ko wax ci télé donc ñi nga xam ne xam nañ li ñuy def ñoom xam nañ ko de xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax a baax mais bon soo amee ay jeunes <laughs> yoo xam ne xamuñ li xew duñ fay courant duñ fay ndox bon yenn yi duñ xam problème yi lan lañ ci def mais boo xoolee ñun 2012 ba léegi li ñu am ci ay wàññi. président Macky Sall wàññi ko ci waxtaan yi ñuy waxtaan ak moom un million et la yoo xam ne ci année bi moom la koo xam ne yaa ngi am oto am dix personnes ci sa kër nga nekk en location dëkk Dakar di am ci économie su dee am nga dix personnes di lu nekk ci location euh, te amuloo oto presque cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille francs CFA mooy économie yi nga xam ne moom mooy wàññi yi wàññi parce que wàññi nañ location wàññi nañ gaz gaz dem na fi ba doon jar quatre mille et quelque mm-hmm. léegi 2885 lay jar wàññi nañ meew wàññi nañ euh, suukar mm-hmm. wàññi wàññi bu mujj bee mujj sax courant la 10 pour cent wàññi nañ ko ci courant bi wàññi nañ lu ne wàññi nañ ko fi ba nga xam ne ñun biñ toppee wàññi yeeg wàññi yeeg wàññi yeeg wàññi Le pouvoir d'achat Sénégal d'après calcul bi nga ministère du commerce def nee nañ quatre 80 milliards de francs CFA. tout à fait alors euh, président une dernière question euh, euh, Moi, je ci li nga xam opérateur de téléphonie mobile yi. xam réseaux sociaux yi ñaari ñaari réseaux sociaux yi terminé <laughs> avant dernière question tey boo xoolee ci li nga opérateur de téléphone mobile yi. mun mm-hmm. tout le Sénégal est free maintenant. Mm-hmm. ñu baal ci li nga xam ne moo publicité bi mm-hmm. alors. Free ñëw na jóge na de Sentel ñëw ci Tigo. Mhm. Tigo ñëw fi nga xam ne moom moo mhm. avec beaucoup d'avantages yi nga xamante ni ñu ngi koy wax. Mhm. alors Ascosen dans tout ça li ko intéressé moom mooy défendre les intérêts yi. nga xam ne ñoom ñoo di consommateurs nan ngeen gisee euh, l'avènement de Free ak li nga xamante ni mooy positionnement bu ñi nga xam ne ñoo di Orange tey jii nii ci ci li nga xam ne intérêt ñi nga xam ne ñoom ñoo di consommateurs yi. ñun dañ kontaan lool. ci ñu am ay wujj yu nekk ci système bi parce que wujj yi mooy tax njëg yi di baax offre yi di baax parce que bu amul wujjee rek problème day am am na nag ay wujj yu fi nekkoon muy Expresso ak Tigo mais wujj yooyu jonge woon wujj wu bees bi ñëw jongee nag indi ay jafe-jafe indi ay feem moo moo indi coow li ndax ñun dañ gis ne tey jii li nit ñi di dépenser ci kër ci li nga xamante ne bii moom mooy téléphone ak ay télécommunication dem na ba presque ëpp na li ñuy jënd ci lekk li ñuy dund ci lekk ndax kër goo dem koo laaj mu ne yow sama paas paas jeex na ay lu mat fukki nit ci benn kër kenn ku nekk ne dina jënd paas minimum 1000 francs xaalis bu bari la dem na ba man gis naa benn maire boo dafa ak ne jëndal téléphone bés téléphone fomp un téléphone fomp mooy smartphone yi connecté ndax dama a dugg ci whatsapp yi comme ñëpp kon bu demee ba niveau kon ba besoin fondamental mais loolu dafa war a yomb man wax naa internet c'est la plus grande bibliothèque du monde soxla comme xam man yàgg naa wax ma ne orange nga xam ne ñoo fi nekkoon comme bu gën a yàgg mais nañ financé école yi ñu am internet xëy na commencé nañ ko sax mais loolu man maa ko wax parce que dama ne comme bibliothèque yi livres yi léegi presque amatul lépp sur internet la il faut que ñu yombal affaire yi waaw mais bu ñu fi nekkee teg ay prix mu yéeg mais keneen ñëw ne damay wàññi mais dafay wàññi ñun dañu d'accord pour ñu wàññi prix yi ba pare qualité bi yokk bëgguñ wàññi tam naxaate nga xam ne dangay wàññi nga ñëw nit ñi ñëw ba pare mënuñ utiliser comme léegi-léegi dañ créer promotion ba pare boo bëggee dugal sax du dem boo bëggee oote du dem loolu tam affaire naxaate yooyu ñun waxuñ ko waaw alors yaa ngi koy junj léegi réseaux sociaux yi hmm. semaine bi ñu nekk nii en fin semaine lañ mais semaine bi nekk daanaka page Facebook yeeg loolu bi Momar Ndao ngay la ci am ak dugg def quelques eh, eh. lan lan moo waaw xam nga li xew mooy nu ma ko dama koy simple la ndax mu gaaw. Mhm. dafa am ñoo xam ne dañoo contre président Ablaye euh, euh, kii makisal mhm. jàpp ne man li may wax dafa arrangé président Macky day yàq seen affaire ñu mere ma muy ñaari groupe benn bi ñetti groupe lañ benn bi mooy frappe dégage mhm. benn bi mooy sonko yi ben bi moy ñeneen opposants yi je m'explique FRAPP dégage dañ wax ñom ci sen ci sen démarche politique dañ wax né Macky Sall moy gouverneur bi préfet bi nga xamné mom la fi France teg pour mu top intérêt France kon ñun nañu wax France dégage ñom lolu moy sen discours politique absolument ñom xamuñ man mun naa politique de xamna naa koy défé mais bayina politique bàyyi ko depuis 16 ans léegi ñu wax ci affaire CFA bi pour mobiliser nit ñi né leen CFA naxaté la etc. mais c'était trop technique quoi. ñu bari comprendre donc amul succès. ñu gis né amna ñu mer ci autoroute bi rek ñu né Auchan dégage ñu né Sénat dégage parce que Sénat ñu pour ñom tubab la bu ñëw fi jël affaire yi di yóbbu xaliss bi bitim réew xam nga sax né Sénat Gérard Sénat ci bopam sénégalais la. dafa am tubab la mais dafa am nationalité sénégalaise légui ñu né da fay jël xaliss bi di ko yóbbu bitim réew.

440 dess nak mom lañuy rembourser dette bi kon gisuma fuñ wax ne tuba bi dañoo ñew rek jël xaliss bi dem sen argument bobu yaq deuxième argument ñu ne oh autoroute dañ ko wara tal mu am lumière parce que c'est pas normal li moy woné né gaay séré wuñ tuba bi dañ ñew def leen man leen ah man de 1985 la am permis France dawal na ci ay milliers de kilomètres autoroute yo xamné luma dawal lo xam boko totaliser ay milliers de kilomètres la amul ben autoroute France bo xamne dañ ko euh, tal but bobu li ñi tal moy parti bi nek ville ben rew rek ci Europe mo don tal autoroute bu bobu moy Belgique rew mu ndaw la te ñom ñu ngi commencé di fay lampe yi parce que gis nañ ne so talé lampe yi ki dawal day dem ba dafay nekk euh, day am li ñu wax sentiment de fausse sécurité bu ko defee accident day gëna a ñu ne ah kon argument bobu taxawul ay tal lampu autoroute nous ne aussi pourquoi nous ñu 5000 lonk sa ñu di def lu leen neex. remorquage. organisé am autoroute dépannage la Sénégal ministère des transports mooy fixé naka ngay utiliser autoroute du Sénac 5000 francs yooyu arrêté Ministère des transports ñu gis ne argument tam ñu ne waaw gelongal dafa dee ci autoroute bi parce que ay nag ñoo nekk ci autoroute bi ñu daw gis troupeau de nag yu ñuul ci guddi gi ba tax ñu dee donc ça veut dire que gars yi liggéeyuñ dara et cetera ma leen ah nag de mala la boo xam ne bëccëg lay dox su timisee fu mu ko fekk fa lay toog xanaa gétt gi réer ko mu di ko wër fii ci senegal nag nag yu ñuul bariwul boo demee ci gétt ay benn ngay gis maximum ay deux troupeau nak yu ñu li and di doxando nak amut xana waji dafa dafa jommi wala li si du lool ñu gis ne fofu tam yàqu e eh, ki bobu argument bobu yàqu biñ gisé né argument autorité yi ñu né légui au champ dégage parce que ay français lañ ñoo fi ñew e eh ben de nga maam di jël ki nit ñi place nit ñi et cetera mais liñ ñu xamul mooy affaire yi grande surface yi depuis avant indépendance amoon na fi. bii Auchan di ñëw fekk na fi ay ñoom City Dia mu jënd leen et cetera ma ne ah ñun de d'accord Auchan dem ndox lu tax suñ mbokk Pël Fuuta yi ñoom ay étranger lañ même buñ bokkee EOMA même buñ nekkee suñuy frère seen xaalis seen réew lañ koy yóbbu te ñun d'accord ñoom ñoom ci ay yii benn bu guddee dañuy fay frigo yi su ko defee munoo jënd dara lu sedd guy ci benn euh, kii parce que dañuy bëgg a économiser te boo fayee frigo bi produit dina yàqu te dal bi du jot ñun ñu ne loolu ce n'est pas normal deuxièmement prix yi nga xamante ne bi moom la ñuy jaayee amul ci benn bu respecté prix yi nga xam ne moom la yoon santaane gaz 2885 le bonbon de 6 kilo bi di jar fi ci Dakar ay 3000 lañ koy jaay xam nga lutax kenn du len bolé té day am ay jënax ak ay kañak yoy yeb yi laal ki day jël paaka bi mu daggé lo xamné poson la daggé ko beur bi wala daggé ko mburu wala diwal la ci chocolat yoy yeb normal mais xam nga lutax jigen ni duñ len bolé parce que bo len bolé su sa jëkër liggéeyee gaz bi jeex du la lebal gaz su ko defee bu ñu leen tooñee ba tooñ leen ba seen xol jeex bu ñu ñëwee ci man sax ah fexe leen ba bu ñu xam ne ñu ñun ñoo la kon contacté loolu métti nañu ba tax nee nañ ñun demandé woon nañ ñu modifier loi bi nga xam ne moo yore affaire yi njëg yi. ba loi bi sax ñu ngi koy mool mais ñun fi ci bëgg a ci loolu ñu ne kon am keneen ku fi ñëw. di jaay ay produits sénégalais di jaay géej di jaay yéet di jaay kecax ci ay conditions yu set boo daan jënd mm, euh, yàpp waa ji day dàq weñ yi <laughs> pour nga mën a jënd yàpp ndax we ñi saw nañ ci et cetera booy jënd jën fa nga koy jëndee da ngay xuus di xuus ci xuus ci ay salte booy jënd gejj wala yéet walla keccax day am sax-sax ngay jënd di noppi di wax dara doo wax dara waaw loolu ñu la doon jaay ci conditions yu compliquées yooyu léegi ñu ne am na foo xam ne mën nga ko faa jaay ci bu silvisé ñu ne duñ avancé mais wala ñun dañu war a nekk ay kooku toujours toujours toujours toujours toujours dëkk di ah, réew di dox àddina di dox. loo xam ne même prix nga koy jëndee ñu ne doo ko def boo xoolal lan moo doon xew bu fin d'année jotaan bu euh, fête jotaan commerçant yi dañu xëy yéegal prix yi. ba fi ñoom Auchan yi ñëwee ba léegi loolu wàññeeku na bu baax baax a baax parce que bu ko defee dootoo jaay gars yi dañ la fay bàyyi dem jëndi feneen beneen bi mooy Auchan ay mille cinq cent euh, li ci dekk rek bariwul matul ñaar fukk li fi nek ci ay super bokoy xol ak ay yenen ye casino ak ñeneen yeeg ñoom ñoom bo leen totaliser matuñ 50 te 22000 boutique mille ñoo am région Dakar kon mënuñoo tej boutique yi mënuñoo tej commerce bi ndax kenn du jógee fi dox 300 mètres jëm ko pour né ma ngi jënd almet donc toujours di nga ko kon di jënd ci koñ donc ñun gis nañ né loolu ñun ñun né au champ reste ñun ñu ne Auchan warul dem na yeneen Auchan ñëw Sénégal yëpp ne Auchan reste Auchan reste ne Sénégal yëpp boobu argument yàqu premier argument mooy euh, Sénac dégage sama wax ji leeral Sénégal yi ñu ne ay eh, ñii lu ñuy wax d'accord ñu ci ñu ñëw ñu ne Auchan dégage ma expliqué Sénégal yi ne wooyu ñun loolu lañ d'accord Auchan reste xam nga kon yàq na ñoom seen politique bi ñu doon def pour am fu ñu basé wu pour attaquer président Macky Sall ñu ne wala Macky Sall lay defaan moo tax mënumaa palais et cetera ba paré di defaan consommateur ñu joggé ci lolu ñom dañu lunkolo ak wa Sonko yi di wax né président Macky Sall mook rakam ñu ñu triant ci pétrole bi nangam nangam lolu moy sen discours politique man musuma bëgg wax ci politique ndax bàyyi politique ma dem ben télévision ñu invité ma di ma laaj né ma bon parce que constitution mo wax né affaire pétrole yi askan wé ko mom té nga askan wé ngay defan il nga wax ma leen ah man de étudier naa 93 contrats de 93 pays différent bi ma leen étudier li ma gis mooy contrat Sénégal yi bokk nañ ci contrat yi gën ñu ne ma ah man leen waaw contrat bi lii rek la man maay état yore terrain bi damay wax ne kan moo ko bugg a ñëw gas risque gas pour gis pétrole su nit ñëwee ma jël la nga commencé gas. loo ci def ko milliard soo gisul dara perte nga dama soo toogee deux ans gisoo ma jël ko jox keneen. loolu loolu mooy texte bi barki dem total bi nga xam ne jox nañ ko gas na dépensé ay milliards gisul dara. yi nga xam ne ñoom ñoo gis nii tey jii ñooñu jox nañ ko ñeneen te ñooñu gisuñu woon léegi soo gasee ba gis petrole bi li nga ci dépensé ci xaalis ñu génnee ko ne temps la mais temps boobu day fekk ne man état man nee naa la dama lay boole par force ak Petrosen. mu and ak yow kon lo ci dépenser bu pétrole sen d'accordul dañuy japp ne dépenser woko ñu né bon dépenser nga 80 milliards ñu né ok biñ gassé pétrole li gën nekk 180 milliards ñu né kon légui comme 80 milliards yu wóor na parce que Petrosen ci boppam d'accord na né 80 milliards la kon légui 80 milliards nañ ko tegee bor ñu rembourser lako muy li nga xamné mom nga def ci machine yi ak matériel yi mu des 100 milliards ñu ne léegi su fekkee dafa ëpp vingt mille barils par jour man état du Sénégal man maay mom 65 milliards yo mi gas indi sa matériel yëpp 35 milliards ngay jël 35 milliards yoyu man état néna la dama la bolé ak Petrosen il faut nga jox ko 10 manam da nga ciy dindi 3,5 milliards jox ko xana mu déssé le 26 virgule euh, voilà xamatuma ñaat mu déss 31,5 n'est-ce pas 31,5 yoy dang koy xaj ñenti patch ben patch bi dang ma koy fay man état pour li ñu wax impôt 25 100 milliards yi xana ay wecci tey ci des di yow lima la jox man état 31 35 milliards yi da nga ci jox ki ma la bolel par force moy Petrosen té mako mom 3,5 milliards la ca des dang koy xaj ñenti patch ben patch bi dang koy dolli ci sama 65 milliards yi man état loolay contrat bi de man ah man de contrat bi ma gis nii daa day défendre intérêt askan parce que loolu <laughs> moo ëpp lii waa di am lii la Sénégal yi ne xëy ndek lii la demee ne kon affaire bi politique la su mobiliser kenn dootul ñëw ñu mere ma man nag Ma, politique maa dàq politique fii mun naa politique man parti socialiste bokk naa UPS bokk naa PS ñoom Ousmane Tanor Dieng maa leen doon jàngal nu ñuy waxee télévision ma tax président Abdou Diouf ak prés ak euh, Ousmane Tanor dien di sol ay simis bleu. <laughs> kon kay mën nga defal gars media training actuellement. moom la le ma len don defal media training wa PS bobu dafa am studio. Mhm. wa PS ñing may deg dafa amone studio télévision bu nekkoon bir école du parti socialiste man j'étais directeur associé chargé de la euh, communication du parti socialiste man ak Omar Jo may ak Cheikh Tidiane Dieye bi nekkoon conseiller presse président. Mhm. mais man dama defatul politique ma bay politique. mais mun politique xam nuñ koy defee. te dàquñ ma ko de mun naa ko bu baax xam naa ko comprendre nga donc mais man bàyyi naa politique dama ne man askan wi ma intéressé maa ngi sonn ci askan wi maa ngi jubal ci askan wi ñoom ñu may xëcc ci ay débat politique bon c'est vrai nag maa leen tooñ parce que tamit munuma len ñak tooñ dal parce que man askan wi lay défendre deug lay défendre suñ ma laaje deug bi lay wax su len deug bi arranger wul day indi problème mais man Sénégal yeb buñ andone jëm droite te droite baxul mané len bon sama jarbaat yi may ciokas ci Facebook yi ñom merew ma leen parce que ñu ci bari xamuñ sax li xew parce que ku dem ba di ma laaj lan moy bilan wu ASCOSEN moy né vraiment yow xana bokkoo ci dëkk bi wala xamo euh, num mu wala peut-être xalé bu ndaw la bo xamné du fay courant du fay ndox et cetera waye dinañ xamné Sonatel ñun buñ démé ba di len gagné di démé ba <laughs> ba ñu len di fëgg ay ay ay ay ay nak la tudd ay milliards yu bari ci ay amaan bon wax deug yalla ñu ngi défendre askan wi mais nak problème bi moy ñun duñ def comme politiciens yi ndax politiciens ci wax lay exister il faut que chaque jour nga génne wax bu bess comme ñun résultat yi moy ñu intéressé du ki dal bu ko defee comme ñok li dañoo wax lo xamné dafa arranger président Eh, gaay dañ na waaye eh, yow Macky Sall nga andal parce que tam président bu defee lu bax ñu né baana suñu gisé muy def lo xamné ne indi ci askan minu ñu ne ko ah président bi kat nangam nangam su ko mënee mu bay ko. Mm-hmm kon ñun ñu ngi défendre consommateur yi ndax défendre consommateur état la yellol manam état mo wara défendre consommateur yi ñun lolu ñuy def état sax daf ñu ci wara accompagner di ñu subventionner état du ñu subventionner so démé France bo démé États-Unis bo démé euh, comment on appelle ça yenn pays africains yu bari ay Côte d'Ivoire dañuy subventionner euh, association ñun amul subvention amul té euh, état da fay subventionner presse mm-hmm. té presse ay privé la té ñun li ñu def pour askan bi yépp la mm-hmm. lo xamné dang koy def duñ la ci fay dara nga mun cee ñàkk sa liggéey ñu la ci xaas loolu yëpp mais lan moo tax ñi fi nekkoon ñenn ñu bari bàyyi ñi fi nekkoon ñenn ñu bari déggatoo leen parce que dañ naan ce que jar na ko. Mm-hmm. parce que loo xam ne da koy def te amul amul compas amul kii quoi amul amul bénéfice. Mm-hmm. looloo tax ñu bari déggoo leen ñaar fukki association ak consommateur ak ñett ñoo am ci Sénégal. Mm-hmm. am na ci ay président yoo xam ne parce dañ daan waaye man yàgg naa fi am na président yoo xam ne ñoo ma gën a yàgg ci nekk président am na ñoo xam depuis 1990 ñi ngi nekk président association consommateur ba nga xam ne moom lañ créé woon. Mm-hmm. dañ leen a tudd. ana 23 association consommateur lu tax tudduñ leen ñii di wax fii nii di def politique ñoom ñëpp ñu ngi liggéey ci nguur gi ñii ay enseignants la ñoo ci ëpp. Mm-hmm. ñii sax ay inspecteurs des impôts et domaine la ñoon ba bañ leen di dàq. kon kay liggéey ci nguur ça absolument rien à voir ndax conviction conviction la rek liggéey liggéey la rek mm-hmm. wala chômeur moo war a défendre consommateur yi non parce que bu fekkee nak ne chômeur mooy défendre consommateur yi dina am problème yu bari parce que yu bari daf koy war mu war a bàyyi moom ay itee njabootam ba pare dem ci loolu daf du sotti mm-hmm. donc pour que nga mën a mën a mën a fonctionner il faut que ngay liggéey ci dara ndax affaire bi fekkoon ne liggéey la boo xam ne dañ lay jël mm-hmm. di la fay salaire ne la nag lii rek mooy sa liggéey ñu ne waaw mais loo xam ne la da nga koy def parce que da nga ci waslu ak di si waslu sa gëm-gëm mm-hmm. di ci jaamu yàlla té yalla rek moy fay nak bo xaré ay population yi wala nga xaar ay kenen fay la non. voilà <laughs> donc donc ñun non lañu gissé affaire bi. li ñu wax nak bon voilà politiciens yi non non voilà ngi ni parce que nguur gu ñow mo and ak mom nangam damay joxe ben exemple. biñ fi jëlé ablay wad ñun conseil yi doon liggéey présidence ñop dañ ñuy dàq. ndax loolu la yoon wax waaw lutax ku bes gi jëlat ma parce que xam naa ne man defuma politique li may def si technique technicien la technicien la ma soxla comprendre nga loolu rek la ñeen nga xam ne politicien kese lañu woon xañ na jëlaatuñ leen mais ñi nga xam ne technicien lañ dañuy liggéey technicien alors euh, Momar ndaw ñu ngi lay gërëm di la sant ça a hmm. été vraiment instructif ñu lay ne ci lu bëri li nga xamee woon gërëm la sant d'abord ci disponibilité bi hmm. Hmm. waaw parce que xam nga man dama japp ne bu fekkee li may ci man dëgg la suñ ma ooyee ne kaay wax ak askan wi même bu ma askan wi di ngaa ñi danaa expliquer lii ma def lu tax ma def ko mun nañ ci bañ a d'accord nag ndax arrangé wu leen mais nañ xam ne daal ñun liñ gëm ci lañ nekk dañ koy continuer defuñ ko ngir dara am na ay président association yu ñu gën a yàgg ci affaire yi ñun association lañ waa association bi bëgg nañ ma continuer jiite danaa continuer jiite suñ bëggatul ma continuer jiite ñu jël keneen du tere man bokk naa ba tey ci association bi ndax membre laa ci te gëm naa ko kon vraiment nag du kenn ku nekk ci fële naan di sànni xeer naan na fi jóge wala nangam kooku la ñuy déglu parce que association dafa am nu muy tëddee euh, donc loolu rek la di wax ne nag xale yooyu merew ma leen parce que tamit bon dañ jàpp ne dañuy politique loolu tax et que donc il faut ñu jëm maa sànni xeer comme man li may wax da leen di yàqal aussi dañuy jéem a seet nu ñu mën a def ba li may wax nit ñi bañ koo dégg euh, comprendre naa loolu. mais nañ xam ne man du ma seen adversaire politique defuma politique mais bu fekkee nguur gi def na lu baax dama naan baax na. te dama koy assumer su baaxulee ma ne baaxul waaw donc loolu rek la loolu rek la mais nag damaa yàq seeti argument daal <laughs> loolu tax ñu mere ma daal du dara mm. alors euh, ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax yéen ñu ngi doon euh, seetaan ci numéro spécial bu euh, en ligne bi nga xam ne da doon recevoir ki nga xam ne moo di Momar Ndao di président bu ASCOSEN di association des consommateurs bu Sénégal waxtaan nañ ci lu bëri ci actualité bi joxe gërëm leen sant leen gërëm à la réalisation mais également permettre de me présenter l'émission Je bi di également ci fan et ni invité comme nous vous koy d'ici là l'information continue sur la référence